أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokku jullit yi mbokku internet yépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ñëwaat ak yéen beneen yoon ci seen chaîne bi nga xam ne mooy les grands secrets nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ci séddoo ak yéen yenn ci secret alquran yi nga xam ne comme ni ñu leen ko yàgg waxee képp ku ci te di ko jëfandikoo yàlla dana def sa jàmm ak sa jàmmi yaram ak sa ubbeeku ci sa mbir yépp ci zaahir ak ci baatin tey nag dañoo ñëwoon ak yéen ci secret boo xam ne secret bu am solo la macha allah muy secret boo xam ne lii njëriñ li mooy njëriñ yi ci doomu aadama ndax doomu aadama yi léegoo léegi danañ nekk ci ay xat-xat nekk ci ay tolof-tolof nekk ci ay guddi yoo xam ne seeni mbokk rek moo leen fa mën a jëree muy wàllu yoon wàllu justice loolu nag dafa xew lool ci jamono ji ñu bari di ñu oo di ñu ci laaj ay leeral tey nag ñu indiloon leen sirru bi nga xam ne pour wàllu kaso la sirru bi ngeen di gis nii mbir la moo xam ne mbir mu am solo la ci wàllu kaso maanaam wàllu yoon képp koo xam ne danga nekk ci yoon maanaam yoon di la topp walla nga am jafe-jafe ak nit mu bëgg laa yóbbu ci yoon wa ilaa nit tooñ la ba noppi yóbbu la ci yoon ngir néewal la doole wa ilaa ngi nit yóbbu la ci yoon ngir bëgg laa sonal bëgg sonal say ñoñ incha allahu boo bindee sirru bi comme niñ ko bindee nii incha allahu jëfandikoo ko ci juróom-ñaari alxames ak juróom-ñaari ajjuma bu soobee yàlla yàlla mën laa def mucc googu ñëw ci yow incha allah suru bi nag niñ koy bindee nii rek nañ leen koy recopier waate nii waaye képp ku xam dana xam ne lii ay suura la benn bu ci nekk ay suura la biñ def numéro un bi ci kaw benn yoon nga koy bind suuratu boobu beneen bu ci topp benn yoon yeneen yi ci des bënn bu nekk juróom-ñaari yoon nga koy bind su ngeen noppee ngeen bind ñaari ran yi nga xam ne moom moo ci topp muy aaya boobu soo paree noppee ci loolu nga bind soixante sept cent soixante-dix-sept fois benn bu ci nekk ci ñaar yi soo paree tëjee ko ak li mujj li incha allahu yaa ngi ko war a sangoo ñaari fan yooyu nga xam ne moom lañ leen wax boo koy sangoo nag incha allahu war naa ànd ak suufu buntu kaso moom lay àndal ak li nga xam ne moom mooy sunguf mante maare ak itam juróom-ñaari xobu pëftan ak itam li nga xam ne moom mooy fukki puso ak juróom moom la war a àndal boo ko jëfandikoo ba pare loolu nga xam ne moom nga moo ko àndaloon moom noonu da nga koy gas nga suul ko incha allahu ni nga ko gasee suul ko noonu bu soobee yàlla noonu la ñuy gasee coow loolu suul ko bu neexee yàlla incha allah ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo nekk ci lalu hôpital yàlla na leen yàlla yëkkati ñi nekk ci prison yàlla yàlla génnee reen ci jàmm ñi ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla yàlla def jàmm ci senegal te def ko ci àddina bi yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu auzubillahi samil alim bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokku jullit yi mbokku internet yépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ñëwaat ak yéen beneen yoon ci seen chaîne bi nga xam ne mooy les grands secrets nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ciy séddoo ak yéen yenn ci secret al quran yi nga xam ne comme ni ñu leen ko yàgg waxee képp ku ci moyu te di ko jëfandikoo yàlla dana def sa jàmm ak sa jàmmi